day bëgg a tudd nag ay mbir yoo xam ne day tax a mucc ci tis tis alaxira yu jafe yu bari yi njariñ yi mu wax ne mat naa jàpp ndax day tax a mucc ci jaar-jaar yi alaxira yu tiis yi da ko tàmbalee ci nan lañuy fexee ba mucc ci sukuraat mbaa boog sukuraat sa woyof te bañ a metti mu ne loolu nag mooy jàng suuratul majid te mooy xaaf wal quraanil majid saar woowu waxu ci wenn waxtu mbaa benn lim nag waaye kon manees na koy bari la jàng rek ndax mucc ci sukuraati dee mbaa boog sukuraat sa woyof toy te cee teg nag wax pexe mi tax nga mucc ci mbugalug bàmmeel moom nag na nga ko waxe woon rek moom la baamuwaat mu yent yooyee mooy sàmmoonte julli juróom ak bari la saraxe ak bari la jàng alxuraan waaye da cee boole fii nag moom ànd akuk laab muy am njàpp bu fekkee ne jàpp ko war bu fekkee tiimooy farataamit baax na la ko ñeenteel nag muy bari la sàbbaal yàlla waxan na ko lay da ko baamuwaat ne yii day tax bu duggee ci bàmmeel bàmmeel ba leer nañ yaatu lool muy xool ba fa bëtam yam lépp di ab yaatuwaay akuk leer ba tey nee na boo tibbee ci suufu bàmmeel ba ak sa loxo daal di jàng inna ansalnaahu juróom-yaari yoon tifli ca suuf sa tegaat suuf sa ca bàmmeel ba nag boroom bàmmeel boobee kenn du ko mbugal loolu nag mel na ne jëfewut tibb rekk ci suufus bàmmeel ba jàng ci juróom-yaari inna ansalnaahu tifli tegaat ko ca bàmmeel ba yenn saa yoo ko defee rek na la wóor ne borom bàmmeel ba kenn du ko mbugal mu dellu baamuwaat ya nga xam ne ñoo indi mbugaluk bàmmeel njëkk a tudd nag ñàkk laablu ca bu demee ca wanawa maanaam bu demee ca wanawa du teylu ba sobe si génn ba jeex mu raxas ko door a jóg xanaa day gaawantu rek jóg yóbbaale sobe mbaa sobe génn ca gannaaw ba mu julliwaale ko loolu bokk na ci liy waral mboolug bàmmeel dañuy wax ne nag xayta moom daanaka bu dee génn bu jeexee rek ñu xam ne jeex na jigéen ba tey bu dee tuur ndox bu jeexee rek jeex na waaye góor nag bu dee tuur ndox moom góor ñi dañ cee wute lool am na ci ñoo xam ne am nañ ceg jàppandi day génn daal di jeex am na ci ñoo xam ne day takk ci bantu sawukaay bi mu aajowoo tàgganti kenn ku ne nag bu xësee xam boppam rek na topp noona bu tàggee mu tàgganti kem kàttanam ba defee na rek li doon génn jeex na mu raxas jóg daal di dem jërul nag muy xër ci bëgg ak sell ak rafetal diineem ba tax muy ñoddi sawukaay ba ñoddi gu méttee métti mbaa mu di ko fëgg fëgg gu méttee métti ndax loolu day tax kocc bi nga xam ne moo daa téye tuur ndox mi mën naa yolom ba mujj mu daal di amee am njokkale nga xam ne tuur ndox ma muy saw ma te yooyu rek di génn ndànk-ndànk mu daal nekk jàngoro na def rek lu digg doomu liyam te bu njortam degré ci ne liy génn jeex na rek na daal di bàyyi noona nay moytu li ñuy wax jaxi-jaxi lu yàq am xelam ak seytaane daal koy dugg ci lu mel noonu yàqal ko yu bare bare kon ñàkk laab lu googu dana waral mbugalum bàmmeel ak yetteem ci tegoon muy fen wax lu amut ak wor ñàkk a sàmm kóolute ak rambaaj mu ne ku moytu yii daal bu duggee ci bàmmeel day fekk bàmmeel ba muy ab dër ci dëri àjjana li ñuy wax naa bàmmeel day naj borom bàmmeel ba itam nee na ku moytu yi boo duggee ci sa bàmmeel sa bàmmeel dalay tàpp ndànk ànd yërmande ni nga xam ne moom la yaay di jële doomam taf ko ci boppam ndànk ànd yërmande noonu la ko bàmmeel bi def moom yi moytu yu mel noonu gannaaw ba mu waxee li tax a mucc ci mbóolub bàmmeel mu jàll si ci luy tax a mucc ci laajug yaari malaaka yi laaj ci bàmmeel mbaa boog buñ ko dee laajit tontu la yomb ko loolu nag mooy jàng suuratul mulki a tabaraka lazi bi yadihil mulk daa mel ne waxu ci benn lim waaye rek guddi gu ne saye boomu jàng ko benn yoon lu néew néew mën na koo bari la jàng itam nag ci waxtu bokk te guddi waaye daal lu néew néew guddi gu ne moom na ko jàng benn yoon mu teg ca nañuy fexe ba yàlla musal la ci ñaqu metti woowee di am ci buñ taxawee bis penc mu ne lay taxamu ci ci ñaq woowee day mooy di dem ci boroom xam-xam yi ngir yàlla sopp leen ngir yàlla di leen liggéeyal ngir yàlla ak it di bari la toppatoo jàkka yi ni ki defar jàkka ja te gannaaw buñ ko defaree ba julli rekk des nga di ko toppatoo bu baax di ko setal ak di ko defaraat ak nag gas ay teen ñi cey naan yii daal day tax buy taxawee bis penc ñaqu metti woowee du la dal mu teg ci addis boo xam ne yonante bi daa waxoon ne bu ëllëgee ca bis penc ci taxawaay bu metti boobee ak tàngaay wa kenn ku ne na bakkaaram toll woon rek noonu la aw ñaqam di toll dana ci am ñoo xam ne nee na seen ñaq day ñëw ñëw ba agsi ci seen nooyu nooyu nopp foofu nga xam ne fi la jigéen ñi bënn bën bënu jaarub nopp ba nooy nooy boobu am nañ ñaq ba seen ñaq ak si foofu ba mu ko waxee ñu ne ko waaw luy tax a mucc ci loolu mu ne xanaa dem di sukk ci kanam boroom xam-xam yi te yàlla rekk tax di leen liggéeyal la ka sopp ka ormal ngir yàlla dana tax a mucc ci ñaq woowu bu dee jigéen nit di xool kanamu jëkkëram ja ko yàlla booleel ngir sopp ko rek tax mu di ko xool te sopp ko it yàlla rek a tax loolu dana tax moom itam bu ëllëgee la ñaq way metti metti du ca bokk ba tey ku bëgg ker ca bis penc nay bari la saraxe ndax kerug aras gi malaaka yàlla yi ñoo koy seeloo nee nañu kerug liwaawul hamdi saxaaba yonante bi ñoo koy seeloo lu weesu ker yooyu nag kenn ku ne la nga daa saraxe mooy soppiku ker tiim la di la keral kon nag bari la saraxe baax na am na itam nag ñu yàlla yi boole ci ñoo muy dugal ci ron aras ñu bokk ak malaaka ya seeloo ker ga da nga di gis ci addis muy wax naa nangam ak nangam day tax jaam bi bokk ci ñu yàllay keral ci kerug aras su bis boobaa yooyu itam mat nay def ku bëgg nag bu ëllëgee yàlla sàng la ci càngaayi àjjana del fexe bay fekk ku rafle nga wutal ko koddaay te yàlla tax maanaam di fekk ku rafle nga di ko wodd daal day tax bu ëllëgee yàlla fay la wodd la ci koddaayi àjjana ya ku bëgg it bu ëllëgee yàlla leel la ci meññeti àjjana na nga farlu ci foo gis ku xiif fexe ko jox mu lekk te yàlla tax ku bëgg it bu ëllëgee yàlla nàndal ko ci arrahiqul maxtuum nay farlu ci fu mu gisee ku mar fexe ba nàndal ko di nàndal ku mar ci àdduna day tax bu ëllëgee yàlla nàndal la ci bëti àjjana yu neex yooyee day tax it yàlla nàndal la ci dégg ba ñuy wax kawsar dem jagleel ko sunu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koo xam ne nag amul lu mën a sànge ku rafle amul lu mën a leere ku xiif amul lu mën a nàndale ku mar bu jullee rek julli ga wecci ku defan yu mel noonu ñu fayee ko ci julli ga defal ko lépp lañ daan defal ka daan sàng ku rafle ak ka daan leel ku xiif ak ka daa nàndal kamar ku bëgg nag boo taxawee bis penc buñ la wonee sa kayitu jëf nga di ko jàng doo rus na nga jàng sóoratu takwir idda shamsu kuwirat moo itam waxu ci benn lim waxul tam wenn waxtu waaye daa mel ne kon na koy bari la jàng rek ku bëgg itam biñ koy jox kayitu jëfam ci bis penc deesu ko ko joxee ca gannaawam li gannaaw maanaam duñu fiq yaari loxoom yeew ko ca gannaaw mu nangoo ca kayit wa ku bëgg a mucc ci loolu na jàng suratul inshiqaq ida samaun shaqat moom it waxu ci wenn waxtu mbaa benn lim waaye kon na koy bari la jàng moo gën a wóor ku bëgg itam bu ëllëgee buñ lay jox sa kayitu jëf duñ la ko joxe ci càmmooñ ndax be nga weesu woon mooy ñu joxe ko ko ca gannaaw li gannaaw mooy damm loxo ya mu dem ca gannaaw joxe ko ko ci gannaaw kooku musiba la waaye ba tey it nangoo kayitu jëfoo ci càmmooñ it màndargam dem sawara la nangoo kayitu jëfoo ci ndeyjoor rek mooy tegtalu texe mu ne nag ku bëgg bu ëllëgee bi ñu lay jox sa kayitu jëf ñu joxe la ko ci ndeyjoor tamit la ko joxe ci càmmooñ na nga ragal yàlla rek bu ragalee yàlla dëgg dëgg ragal yàlla daal bu ñu lay jox sa kayitu jëf ci ndeyjoor dañ la koy joxe nga nangoo sa loxob ndeyjoor ku bëgg nag bu ëllëgee buñ dee peese jëfi yiwam bu ëpp jëfi safaanam ba mu bokk ci ñay texe na jàng suratul qaariha al qaariha tumal qaariha moom it waxu ci benn lim waaye kon na koy bari la jàng mu gën a wóor ku bëgg nag bu ëllëgee bu ko yàlla xisaab xisaab ja jàppandi lool na jàng suratul ghashiya moom it waxu ci benn lim kon baril gaa jàng moo gën a wóor mooy saaru hal ataaka hadisul ghashiya mu teg ci ku bëgg nag bu dee jéggi siraat jéggi ca bu gaaw ànd ak mucc ak jàmm na ko wute ci rafetal njortam ci boroomam ndax yàlla daa wax ne sama jaam kat lamu jort ci man rek bu dikkee moom la fi fekk kon nag na rafetal njortam ci yàlla tayit di bari la julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu farlu ci suy toog rek jublu xibla lu may nag muy def li ñuy wax dem wanag bu dee ci àll ba moom ci fu dara warut muy digg bu yaatu rek bu fay dem wanag day araam mu jublu xibla ak wan gannaaw xibla na jublu feneen waaye bul wan xibla kanam bu mu ko wan gannaaw bu dee ci àll ba am na lu ko wër nag ba làq ko am nañ ca wóote ci ndax mën naa jublu xibla wala mën na ko wan gannaawam déet waaye moytu ga moo gën a wóor rek mu des nag bu dee ci kër gi bu dee ci kër gi moom moo xam day tuur ndox rek moo xam day dem waramu mag lu ci mën doon bu dee ci kër gi moom sañ naa jublu xibla mooy fi muy julli jëm mën na ko wan gannaaw itam teew nag bu ma nee ormal xibla fexe ba nañu defare duus ba mu jëm fu bokkut a xibla loolaay gën waaye daal bu dee ci kër gi moom fu mu jublu rek baax na doonte sax mën naa bañ a jublu xibla teewul mu jublu xibla it du tax ñu ne def na lu araam mbaa dara teewul nag ormal xibla moo gën mu farlu itam ci saa yu jullee farata ba sëlmal wax ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah ilahan waxidan wa rabban shaahidan wa nahnu lahu muslimoon na fexe ba saa yu jullee julli farata wax loolu yenti yoon ku boole yi mu wax daal rafetal njortam ci yàlla di bari la julli ci yonante bi di xër ci bu toogee rek jublu xibla bu jullee farata ba sulmal wax ashhadu jooju ñu wax ba ci muslimoon a yent yoon ku saxal loolu daal buy jéggi siraat day gaaw lool yomb lool mel ne siraat la muy gudd gudd bu dee ci moom ñeenti xasab képp lay tollool ci moom ndax nu ko ko yàlla gaawalale ak nu mu ko ko gàttalale ku bëgg a mucc nag ci taxawaay bu yàgg boobee ci bis penc na fexe ba gëm yàlla dëgg-dëggi gëm rek ku gëm yàlla dëgg-dëgg moom na ko addis ba waxee bis penc la muy yàgg-yàgg bu dee ci moom jul juli farata sax moo koy gën a yàgg ci moom xam nga ne moom juli farata ak loo yéex yéex li ci ëpp du yàgge noona gëm yàlla dëgg-dëgg nag taxawaay bis pencam dañ koy woyofal ba sax taxawaay ba mu daan taxaw julli farata mooy gën a yàgg taxawaayu bis pencam ma tax mu naa nañuy fexee ba mucc ci yàggaayu taxawaayu bis penc mooy na fexe ba gëm yàlla di wéye ndigal di tuub di dellu ci boromam su boobaa yàlla da ko woyefalal taxawaay ba ba mu toll ne ci moom wenn waxtu dong dong dong